barke Sidi Birahim Fall bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman mbooleem murid yi déglu leen ma yee leen ci mbiri Seex Anta bu leen nelaw yéen mbooleem murid yi déglu leen ma yee leen ci mbiri Seex ant bu leen nelaw yéen li may nelaw nelaw du tee ma yeete li ma gëlëm gëlëm du tee ma woote amaana kuy nelaw nelaw lu ngir réer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 wa qaala qutbu lawliya almakiyu radiya anhu lahu almakiyu wa fi lxadisi in ahaba llahu hubaydo bi nukbati ibtalaahu fa aysu ma yastabiri ijtibaahu wa aysu ma biha tada stafaahu fa aysu ma yastabiri ijtabaahu wa aysu ma biha tada stafaahu أهل البلاء ليس لهم ميزان وليس ينصر لهم ديوان دبل المواق لا دلون يونين يا ak saaba yaag walli yàqe jam ya soo xalamee mbir ya amoon ca baawoon mbiram sëriñ gaawoon wayaf ci baatin soo xalamee mbir ya amoon ca baawoon mbiram sëriñ gaawoon wayaf ci baatin seetal borom muñ gañu naa ayoo baa sax yaa ko daa xëccoo di wat ni koo baa teewu koo sant di wax alxamdu moo tax ba yàlla naa ko nixmal abdu seetal ma daani yàlla ma daanu cib teen ñu boole kooki gaynde yeew ko ci ceen gaynde ya faf di mar wa muy ree ñu far ko jàngal saar ya rab yay waare yaxyaa na tomba dootu am ci Sénégal noonu yaa ko jàpp xar jëmmam ja yaari gaal muy bëgg a wax yàlla yebal jibriilu ne ko bu nee in dootu dem marsoolu soo xalamee maam sunu ibrahima bam laata am xalilan ak xalima noonam ya génne nañ ko muy bay feela ba yàlla ren ni loo ko ismaila ñu dellu taalal ko bën nam namrosa def ko ca biir yàlla seral solom sa seetal ma yonnen ba naa yanqoo gu mën a ay at di palantu nee baa dadaa mooy ronkoñ gannaaw bu yuusufa sangoo ba fu mu jekki saxoo yaa asafa soo xalamee yuusufa ak mbokkam yaa dellu xalam kasoom ba ak tuumaam yaa dootoo ragal kuddul ilaahi naasi doo yox yoxeeti ngir pexem xannaasi na tub jullit day yokk ay maqaama ba muy sipi ñaawte bisim qiyaama na too di kerkeraanu law li yaa yi ku weddi laajal xayrul anbiyaa yi mas nañu koo génne mu dem ba najaraan ñu di ko sànni doj tanaa day jabaraan noonu yaa ko génne màkka ngir bañ diine bi isni rabbi la dem madina fanaan na cim xunti fanaan ci ay doj ànd ak ababakar lu nekk ñuy daj fam nañ ko tàbbal ko ci biiru sarwaan jox nañ ko tooke teewu ko doy kiimaan keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak falaqen mocc ko xayru naasi keroog la yàlla daane kéefër yëkkati lislaam loolu doy na tiitar duniyaa xanaa du moo di sijnul moomini jannatul kaafir yi ñii ñaar duñ ma ne dogal bu am yàlla ko def te xam na di ay di yiw soo gërëmul gërëm na seetal saxaaba ya gannaaw yoneen ba waree fu koo wax ku xamul baatin ba am na ca mbir yoo xam ne làmmiñ du ko laal am na ca mbir yoo xam ne dem na ko misaal fa wajabal imsaaku amma sajara waaye danaa la fi mosal file dara ndax ku xamul yaaram mu dolli ko waar ku man aram na seeti nuurul lafsaar gannaaw rasulullahi ak siddiqu lañ ren ni Ousmane dellu jam faarooku rey nañ ko tuumaal nañ ko jàpp marwaan mu sooke mbir ya déglu leen yéen gaawaan daw nañu kër ga arbaina yawma wa lii doy na fecci war ma kenn mës la gis nañ rey Abdullahi dañ koo salab dog bopp ba wóor na leehi yowmal jamal toj nañ bëtum càmmooy ba bis ba ca des ñu toj bëtum ndeyjoor ba muhammadun ababakar siddiqu layen wajar na waaju nekk yuuqu rey nañ ko wat ko sànni ci santaare taxan jafal ko boole kook ximaar yi aliyu ay dara ma doon jàmbaar ja abul huseyni wal hasan yaakaar ja bañam ya rey nañ ko ca réewum koofa ngir weddi yàlla gaaña rof ko foofa fa muy jullee fajar la ibnu maljam fab jaasi ñëw bett ko daal di koy jam seetal huseynu yow ma asura a lañu ko rey ca réewi karbala a noon yaa nga yor bopp ba gannaaw bu dee naa wa wanaa sa yax la na seetal hasan noonem yi dañ koo tooke daal di faatu soxna saa ko sooke ñoo tooke saadix dellu tooke baqir ñoo tooke zeynul abidina tahir satub rasulullahi musa alkasimi gënee fu ko am ngor ci doomi haasimi taal nañu ndéegam ci kawam ta baxdaat tëj nañ ko ay at baat ba mel ni ak raat yaqooba doomi waaju naa daawuda kookaa réyum nattu asal mooy waadaa fukki at ak juróom la am ci bënn aw mur lay reere te la génn seetal anas baayub imaamu maliki dooma a xal li ngir mi tax nuy saaliki tëj nañu koy at ci kasom la faatoo mbër mu ko jullee wuutu foofa faatu tëj nañu koy at ci kasom la faatoo mbër mu ko jullee wuutu foofa faatu xanaa xamoo xilaaju suufi yooyu mbër dóor nañ ko waxtu tàkkusaan junni yar mu tëë weddi gaaña far ko ren ni sànni ca daj la ta amoon nay jén nii xanaa xamoo jafara doomi yaxya tëj nañ ko far ko ren ni jéng yaxya na mun tasir def mu tawakkil baayam ba ko doon ni kenn mas la gis nañ rayan abdul qahiri ak muttaqa ak mustahin ak nasiri dañ leen a tër daaj pont mbooleem cër ya togg bi teex sotti ca mbooleem gëd ya abbas borom daara jawoon ca misra tëj nañu koy at far rey fa bisra borom jumaa jawoon ca faakahaani tëj nañ ko far ko ren ni toj bun yaani xanaa xamoo mansuuru sayfu diine moom la ñu génne woon mu dem ba siini seetal ma kañ dàq ca réew yu sore ya ñu jóge misray daw ba laskandariya ñu jot ko far ko jàpp tëj ko foofa te woowa waxtu moo defoon xalifa dem xulafaa u yey donoy rasuulu ñoom la ñu def nii kenn wërta wóolu soo xalamee zaasali yoog saaraani kalaame nañ leen nattu leen sëhraani soo xalamee borom yeneen ci ngir yaa doo gis ku daj la ñu dajoon ca buur yaa ahmadu an balin maraw ca ngir yaa ñeneen ti jéng lañ defoon ca yeel yaa daanañ ko caw téeméeri yar suba ngoon te mus la weddi yàlla mus la mooy yoon wa yaxtimu alquranu kulla yawmi maa qiyaamihi mu diima sawmi ci lii la sax ba muxtasim xëy faatu buur ba ko tëj lu woon taxul mu yaatu ba muxtasim faatoo ñu xëy fal waasix mu yeesalaat kasoom ba dóor ya far sax soo xalamee kasob abu xanifa at ma abu jafar defeeb xalifa kon doo xalaatal siidiyal muxtaari téeméeri yar la daa añee ka réere téeméeri rakk yuñ wubbee alhamdu la daa def ak door a wérdu wa yaxtimu alquranu kulla yawmi maa qiyaamihi mu diima saw mi ci lii la sax ba faatu wóor na baxdaat fi yawmi jumaatin la war ci ak jaag soo xalamee fitnay imaamu maliki ngir waxi haaruna rasidil maliki kon nga ndax malik amul karaama te xam ne day ragal ëllëg malaama seetal mbirum amina ak maamoona te xam ne ñoo dogoo géñoog haaruna da koo yalam bam xam ne gaañ a dee fa mu rey ko dal di xëy defub xalifa su ngeen gëmul lii yéen muriiti gaawaan ngeen dal di yër téeréb xayaatul ayawaan te xam ne tey bu dul ko nag français mbir ya amoon dana amaat ci saa la ñu defoon gaa ya gëmoon yoneen ba misaal ma war naa am ci gaa yi bamba waaye français ndot na góor yi senegal ñii ñu fetal ñii ñu dugal ci gaal ñi génn gàddaay far di dem ba faatu ñii joxe seen ngànnaay na ndax ñu yaatu fam nañu saamoo di ca réewi soose yóbbu gabon booleeg biraama siise taalal ko pour ba ñuy lakkay bolañse def ko ca biir laa xawla bi français ñu génn lam du jul ba ñooro rey makki doom ja jàll fuuta tooro ñoo dellu rey almaami abdul buukar ahmadu seyxu jàpp abdul qaadir jàpp rakam almaami ali buukar yóbbu gabong doom ja ñu wan ko puutar ñoo génne albureeki sàmm ceelaw foog raa si yéen penku nii leen ma waawaaw yi kajoor yëpp yi ne woon ca baawoon ñoo leen toxal xëy taxawal ti waawoon raatale doom mi buur ya woon fa saalum raatale siin gànnaar taxaw ne maalum sëriñ sa woon diggante waaloog njaamur ñu jàpp leen génne fatul ab njaamur ay na sëriñ Makka Biraami Xaadi ñoo ko ne caste moo rawoon koy xaadi satum Matar Ndumbe ma sanc kokki Ahmadu Aminata ñoo ko sànki nan jéem dëddu àdduna bonam ga te xam ne waaju ayawal ayam ga dunyaa di tiisu gaa yi jëm ci yàlla tey àjjana yéefar yi weddi yàlla ku weddi seetal ahmadul mbakkiyu bam laata doon ahmadul makkiyu ku weddi seetal ahmadul mbakkiyu bam laata doon ahmadul makkiyu noonu yaa ko génn léegi mbàkke baari sandal ma yaa nga naa ko ndar ngay jaari mu jaari ndar muy bëgg a mel ni daaru ñu dal koy jalax mu wey ndakaaru soo xalamee yaari guddi ndakaaru ba dégg wax jëmbër ma wax nga waaru ida sakartu zalikal mabita wa zalikal amira wa sabota taarat ilal jihaadi bil armaaxi nafsi walakin sabaanil maahi noonu yaa ko génne foofa yóbbu galwa mu sax juróom yaari atam ciy balwa dem na konaakiri ba dem maa yomba te mës la yox yoxi ba del si tuubaa kasoog fetal mbaa karawaas mbaa jaasi du tee sëriñ tuubaa di way ci naasi mu ñëw ñu fab quartier ya booleeg mbaaxaan ci kawi tuuma lépp def ay caaxaan ngal dolle bamba du moroomam kàccoor gaaxi tukkal deefu ko bergal mboccoor yan bañ yenoon xutba ya ak lab ya te attanuñ ko moo ko fab raw gaaya dëngañ di wéy te tawatul balaaya suuratul axwaani la am ci laaya sëriñ si naaqis lañu bàmbaay kaamil mbir yépp suq lañu bàmbaay kaabal man zakka fi dhalika fal yu jarri bi wa man yu jarri baa bi taqarrubi xandeer akub dërëm akub diinaaru ñooyam fa daam ta du mayey diinaaru bàmbaa donoy rasuulu moo ñime mooy kenn ku wecci mbooloo wa qiila rubba rajulin ka alfi wa rubba alfin qiimatan ka uffi muhammadun fardun yafuuqu tasniya wa faaqa jamhal wal hadaaya muxniya sëriñ si cam soo ko xiyaas mu yées ko te moom palaas boo ko wutal mu fees ko sëriñ si cam soo ko xiyaas mu yées ko te moom palaas boo ko wutal mu fees ko sëriñ si aslëf ciw desam la ñeddal seex anta moo tax noon ya faf ko randal ku donn saahir war a jënn baatin saahir balaa mën a taxaw am baatin kuy rëbbu day xiif a kamar sax baamu nangoo guddee baadu fetal luñ jaaraama maam seex anta yaa gëm bamba yaataaru yaatabe tëgëm yonen ba yaa njëkk a fab sa mbir ci seenu askan jébbal sëriñ Tuubaa niroowu la gëm yàlla gëm yeneen ba am sëriñ ba moo tax gëm dogal ya àttan yan ba gëmuk dogal te aw ndigal fograasi nii la sëriñ bi def baraw français sa yen bu réy bi diis na mbooleem senegal te tawatoo kalaame woo nex ma rijaal fa rajulu rajulu man yasfiru fi baliyatin wa nixamin xaysu tafi sabran jamilan bàkke yaa wakiirlu yaa wóolu rabbal arsi maa la wóolu nattu yu rëy booleeg bari jaloore ànd ak tànk la yey loore yaa fi demoon Konaakiri ki Kongo fekki Sëriñ Tuubaa leen ma gongo yaa bari ay ndam ta bari jaloore yaa dem borom mu géej garoom mu tuure yaa aji umra dem minan dem arafa yaa dem safa dem marwata ak musdalifa siyaara fil madinatil munawwara mu ne fu laa gàkkal aram nga sawara ahmadu njaay ma yoro ibrahima yaa leen xamal maqaama ibrahima rammu nga leen tàggoo nañu sunoo ba siyaare nañ tey ba siyaara tuuba ajaale nga mbër wa mataale say doom te manti bamba samba yàqoo sam koom fa pabiyong ba fa rasulullahi yëg ko sëriñ tuuba ndamul wallahi selang lu nga ŋàññi ci wàllu yàlla fees nga palaas santal te wóolu yàlla yow la faransa teg nattuy marabu ngir xam ne mat nga xaw su mat nga xutbu yoonu murit sempi nga seenu raaya saw des la giiroo ba am hidaaya sa mboor la gaa yee xentu fii ba gànnaar naka nga jóg ñu tuddi siidil muxtaar yaa njëkk a aj màkka ci yoonu bamba yaay sant yong ci yoonu seyxu bamba lu nekk yaa ko njëkk am ci soo daan yaa nuy mosal di musal ci ay daan yaay ndimbalal réew mi ci at mu bekkoor yaa daale bal waa doole yëg ñi fiy buur jirim yi ak miskin yi ak ñiy baayu ak moslukat yi waaju ñëw nga waayoo amaana kuy ndokk yi wi tax baaraam ba te xam ne yaa canal ndeyam baayam baa mënee fulaa soxlu ba far sa ndam yi mënee fulaa gotti ba suul sa jëf yi yaa war a sant yàlla ak yonen baa ngir foo taxaw ràngoo nga nee li bamba bamba takal na la médaille yi baatin amul ku koy tekki ku dul borom kun mbërëm sëriñ Tuubaa mënee fu koo daan ma ngay takkee ndoom ma fëppee yi diiwaan maam Anta Njaay wàcc na am nab yaaram am ilimaan gàllewuleen ci maaram yaaram du gam-gamloog sagan mbaaxaadam wallaahi waa ju nekk xam na maasam taxawlu naa lii doy na gaa yu baax yi waa ji ko dégg war a muñ balaa te war muñ nattu yi ak bekkoor bi te war a tuub yi ak bàkkaar bi ilayhi tuftu tawbatan nasuuxa man kulli ma fa'altuhu qabiha du ko nag xalaat ñiy parnoncé danaa fi way way wu defal waa suuf si ahasanallaahu min alseytaani wa kulli xaasidin min aljiiraani wa min tafassuqin wa min takabburi wa min tahawudin wa min tanassuri seytaane day mbër muy liggéey yi ruuxale tubaab di ab dagam di gën loo féewalee xanaa yëgoo ci alquran li yàlla wax inna sayaatina la yooxoona ilax naafiq yaa ngi daw diraam ngir jamono jàngal isaala qul lidina amano bu ñu demee Touba niroog waa Touba te bu ñu demee ci réew ma mel nii Kooba waaye Serigne Touba mënee fu koo nax mënee fu koo njublan ku taw lu day teex tabaarakallahu na dem mbootam yaa ci ahmadul maamoonu ak rakkam yaa cam sañu naa ahmadu faati tuure yàlla nañ ko tuuri may yu doy waa tuure te bamba boole nu ca yi diiwaan te fa borom gaawaan mu dellu gaawaan te yàlla na waatu mu kutoo ki ñooro jébbalu ak sigoo ki fuuta te taal ba bamba taale woon ci réew mi yàlla na ko seex dekkale far ci réew mi te dem gi yàlla na dolli kuy maqaama ak i ngërëm keroog bisul qiyaama amina amina wa sallallahu ala nabiyina wa man walaahu muhammadin wa alihi wa sahbi وكل منتم له في الحسب ورضي الله عن القديم مع التلامذة بالمخدوم ووهب الله بهم لموسى أنك سرين توبا تتقوك بوسى ووهب الله بهم لموسى أنك سرين توبا تتقوك بوسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد